gannaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant sëriñ Touba di sant Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ba yéene yi nga xam ne am na ko pour liggéey Seex Ahmadou Bamba suñ borom mottali ko ci yéene yooyu waaye nag duñ fàttit Serigne Sidi Makhtar moom mi nga xam ne liggéeyal la Serigne ba tey mu dem fekk ji Serigne Touba yàlla na yàlla dogal mu am ngërëmul Serigne Touba ci ñu bokk ak ñun ci yàlla yokk ay leeram fa mu nekk. kon ñi ngi leen di nuyu di nuyu mboolem responsable politique bu fi ñëw di nuyu ñi nga xam ne it yónnee nañ fi ay ndaw lu mel ne excellence euh, monsieur Pathé Diakhaté yónnee na fi ay ndaw ñu doon ay ndaw yu mat ndaw ñi ngi rafet lu loolu di xam ne moom it gis nañ liggéey bi muy liggéeyal président ci biir dëkk bi ndax man damay koo xam ne nii bu ma gisee nen ne nen a nii loolu moom du ma ko nëbbu kenn kon gis nañ taxawaayam bu baax ak ndaw yi yónnee di nuyu it madame mbay ñoom yónnee na fi ay ndaw di nuyu sëñ fallu ak mboolem responsable yi fi ak allié muy sëñ Bass Gay euh, Gay mi nga xam ne moom moo fi jiite wàlluk allié yi muy AFP ñun nag mbir mi daanaka ñetti mbir ba ñeent moo ko indi bi ci jiitu muy fan yii ñu nekk am na ku ñëw ci dëkk bi di am ay yëngatu yu mu fi def ma bëgg koo présenté waat encore sénégalais yi ndax dafa mel ne dañ koo fàtteegul kan mooy Idrissa Seck Idrissa Seck nit la koo xam ne nii danaa ci tënk ñeent rek fii ci dëkk bi di Touba deret ji fi njëkk tuur mooy sëtu Serigne Touba Idrissa Seck moo ko indi ndax amoon na ministre de l'intérieur amoon na ministre de justice procureur mi ngi fi woon mais kenn prononcé wutoon ci dossier boobu me ni moom rek moo ne woon nañ ko jëli ak nun ko mën a jëlee après après bi li yàlla dogal mu am moo wax ne duñ bàyyi même porte kii muy def ci dëkk bi lu ko neex ci réew mi ak ak famille boo mën a bokk beneen bi ci tegee ñëpp xam na ne amuñu lu ñaari doomi Serigne tubaay yi mujj ci kaw suuf muy Cheikh Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñoo nekk dañoo tedd ci ñun bëri ba nga xam ne duñ ci egg waaye danañ xam ne lu ci nekk rek am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon ci ay jamono yoo xam ne umpul murid yi loolu umpul murid yi bërki démb la ca kàddu yooyu dëppoot ak kàddu yu tegge ne beneen bi ci tegee muy boo xam ne bu ma jege la am ma lu dul moom moo ma boolee ci sëriñ Tuubaa bu taxee ñuy wax du baara Dolly muy sëriñ Bara Dolly Mbacké fii la taxaw ñu ànd sëñ Baara di xeex di xeex di xeex ba indi Ablaye Wade teg ko ci ci réew mi ban ko tegee ci réew mi benn post vice président assemblée nationale bi PDS amoon ci biir euh, bi mu nekk opposant sëñ Baara Doole la ko Ablaye Wade joxoon jox ko numéro 4 loole ba mu amee bis ba nga xamee ne ñëw na assemblée di cessé ba mu wooyee sëñ Baara sëñ Baara na ko Mbàkke la mu ko wax publiquement mooy sëñ Bara xanaa xamoo fii kenn du fi wax Mbàkke président lañ fi wax loolu ba mu amee ba mu koy rappelaat sëñ Bara na ko ba yomal xeexam Mbàkke laay wuyoo ba muy rappelé loolu ba muy rappelé waat di defaat vice président yi bi mu egsee ki turu sëñ Bara Dolly ci turu sëñ Bara Dolly da ko effacé def ko député simple kon jàpp naa ne ki nga xamne moy xex ku wuyo Mbàkke ci bir assemblée nationale tay bu del waté taxaw bir Touba gi dama japp ne mouride yi mom fàttiwuñu ca murid yi amuñu kuddu serigne Bamba yaakaar ñu ku Bamba ca ku japp ne man nga leena a nax da ngay nax sa bop ku japp ne man nga leena nax da ngay nax sa bop parce que damay wax ne sax buma déggé déggee leader wala dara ñun ñii def politique xam lan mooy politique di wax naan man murid laa di ko wuyoo man ay rey damay jàpp nit ki bu nekkee murid koo ko nekkal sa bopp koo ko nekkal Serigne Touba am na ku ne ku ne rek Serigne Touba am na ko kon jàpp naa ne nit ñi nan bàyyi xel ne loolu démb la rek bërki démb la rek beneen bi ci des gis naa dernière sortie muy wax ñak go xamne ki nga xamne mom lañ andal muy président Macky Sall ñak nako ko jox cër président Wad man japp na ne ba nit ñi faté wul kan mo fi doon tuddu nan la nit juddu di créer ba ñew ci biirum ndayam lolu yeen ñi jàng nasaraan yaakaar naa mënumaa prononcer mo bobu waye xam ngeen ko yaakar na ne kadem bay wax lolu ci mag ci biir rew mi ñepp diko deg koku wërtu jox ben leçon kenn kon nit ñi jàpp naa ne fii di Touba bu jàppee ne loolu muy doxal wala loolu muy gëm-gëm lu ne murid la mi ngi nax boppam murid yi jamono yi ñu toll kenn mënu leen leen ndax ndax am na seen i gëm-gëm ku leen gëm ak ku leen gëmut la nga gëm yow la concerne sax murit yow la concerne waaye kenn du ko ci jaar pour mën a am réew mi muy senegal kooku moom murid yi am nañ ci gis-gis yu mag kon boobu mooy ponk bi nga xam ne moom laa waxoon ne moom lañ ci njëkk jànkonteel ci fas yéene noonu jànkonte ak moom ci dëkk bi fas yéene noonu tamit jàkkaarloo moom ak ci dëkk bi ndax bokk nañ ci ñi nga xam ne yaakaar naa ci li ma gëm mooy mbirum sëñ Tuubaa moom ku jàpp ne da ngay da koy nax sa bopp ngay nax bulool loolu jàllee nag maa ngi woote unité pour ñun responsable politique yëpp ñu ànd nekk benn bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi xam ne fii ñu jëm am na luñ bëgg ca lan bëgg bëggal ko président Macky Sall loolu mooy suñ ndam waaye nag du te kenn ku ne dafa war a yem fa war a yem ndax loo bëgg-bëgg jàmm it lii dëgg moom wax ko kon liñ bëgg mooy unité nekk benn ànd liggéey pour fas yéene élection yii ñu jëm président am deuxième mandat premier tour waaye ñu dikkaat ci di loolu buñ ko defee ni koy defee muy unité ànd nekk benn joxante cër jàppalante ànd ñu ñëpp nekk benn bis bu demee ba am ndam kenn ku ne kenn ku ne xam ne ku man kenn ku ne xam nga ku man kon loolu ñun waa dëkk bi ñoo ko moom beneen bi ki tegee nag dama koy adressé suñ xarit président de la république danoo nekk ci dëkk bi di ko liggéeyal ñu xam ne Touba na bàyyi côté politique bi xel ndax mooy deuxième ville ci population ci Sénégal bàyyi xel politiciens yi ndax ñooy wàcc ci waar wi ñooy dem ci nit ñi ñooy dajale nit ñi ñooy mobiliser nit ñi mu jox leen ay doole ndax dëkk bi ay cadre gi fi lu nekk fi ñu mën a yor réew mi sax ñu ngi fi mais mu dooleel leen ngir lii ñu jëm ñu mën cee am ndam ndax saako bu ci dara nekkut du mën a taxaw ca loolu menn moom rek moo man kon appel boobu dan ko koy def di ko lancé ne ko nam recevoir wa Dakar non la war a wa Touba ñun ñëpp ñu toog jàkkaarloog moom ndax ñi tax ñuy wax ay responsable ci dëkk bii dëggantaan boo ko doon calculer sax matul kon lan moo war tax ñu war a mën a toog ci taabal jàkkaarloog wax ko doléance moom mu wax lim bëgg ñu wax ko lim bëgg ñu xol naka lañ wara mëna def pour and ak mom liggéeyal ko ngir am ndam man li la koy ñaan bala yag ndax wolof dafa wax ne ab reer guddi lañ koy lek waye beccëk lañ koy waajal fi ñu tollu batu français bi dana ko ci duggal dana maintenant au sommet lolu bas nga nga nga firil moko moma bi la moment bii la ngir ñu liggéey waaye bu ñu ba élection yi des quatre mois man sëñ Modou Bara Dolly ah ku mu ci woo ci terrain bu moytu boo gëstoo doo ma gis ndax la ca la cay am ci dëkk bii bu boobaa ñaanu ma yàlla bokk ci waaye fii ñu toll dëkk bi bu ñu joxee ay moyens ñu ànd unité nekk benn wallaay la si war nañ ko mën a gañe ndax dëkk bi nekkutoon ci loxoy PDS ñun ñi ko fekk ay opposant la woon ci loxo socialiste la nekkoon fan lañ jaar ba waa PDS gañe ko ca fop fi ñu jaar ba waa PDS gañe ko côté politique bi rek moo des ñu utiliser ko lii may wax excellence parti jaxate témoin la ci fan lañ jaaroon ci social fan lañ jaaroon ci ndimbalante ak jàppalante fan lañ jaaroon ci unité nekk benn sëñ Bara Dolly taxaw responsable yi ànd ak ñoom excellence parti jax jàpp ci wàllu finance ñu gañe dëkk bi loolu mooy li fi amoon 2000 ci sama kanam la ba garendaa di di takk fii ci ci arrondissement yaakaar naa bokk naa ci nañ nekkoon ca bopp ko kon fan jaar xam naa ko bu wér buñ dimbali buñ jàppee ci wàllu social yi dimbale sancaan yi wàcc ci ñoom jàppale leen président du ma wax ci bilan ndax dëgg dëgg bilan bi jërul sax ñu koy waxati ndax am na bilan ba noppi waaye buñ concentré ci bilan bi parce que am na ko ba noppi dëkk bi boo gisee lii mu fi xotti ci ay tali autoroute Ila Touba ma dégg sama xarit Babacar Gueye démb di wax ay waay deuxième ville du Sénégal kay ab autoroute réew moo dem mu ne kay bal balay fen di am autoroute yaakaar naa deuxième ville bala la ñuy xëttali ba pare ñuy waxaat feneen te fii moom ku ko bañ ak ku ko nangu Touba c'est deuxième ville du Sénégal kon jàpp naa ne la Babacar Gueye di wax damaa jàpp ne bu demee France wala mu dem Yamoussoukro wala feneen feneen ci ay ville ci aduna bi bu développement di continuer ci walu économie bala ñuy euh, sokalé ay gox ci fenn dañuy seet dëkk yi ëpp doolé ñaari capital yi ñu boole booleen booleen la autoroute kon loolu le président def defal ko ngir murid yépp nak autoroute il a tuba 400 quelques milliards murid yépp la ko defal ndax ba la ngay xam loolu magal jot ci bu demee ci kanam ci walu économie réew mi na xam ban njëriñ la am ci Sénégal gépp la ko defal ndax Touba dafa nek ci digg bi kon boobu bokk na ci bi nga xam ne waxoon naa danaa ko leeral ma dem ci sama beneen côté bopp bi euh, dem ci sama beneen côté bopp muy ci sëriñ gi ndax man toujours damay wax ne bokk naa ci parmi ci sénégalais yi nga xam ne bu ma jëlee sama côté bii bu ma neex wax ci ci politique su ma jëlee sama côté bii bu ma neex wax ci ci sëriñ sëriñ si ñun loolu ndimbalu sëñ Tuubaa moo ñu ko defal kenn mënu ci dara ku ñëw dana wax ak ñun ci réew mi waaye président dama koy wax ne ko ci wàllu politique ah bum mu dépendre ci sama côté sëriñ bi de parce que sëriñ si duñ wàcc ci ci terrain bi de politiciens yi ñooy wàcc ci terrain bi ca it maa ngi koy alert di ko wax na ne am lu mu xel xel 2000 fii la ma fekk jamono socialiste yi ñooy xeex de 89 laa dugg ci politique bi jàppale Ablaye Wade mu def mitin Mbàkke foofee la doon waxee ne sëñ Abdou Khadim mooy sama sëriñ ca Cheikh Abdoulaye Lahat joxoon ndigal kon léegi ma xaw a fenn ah lu bari fekk na ma fi ma koy alerte di ko wax ne ko am na ñoo xam ne ci sëriñ si képp ku mas a àndal dafa daanu na leen bàyyi xelaa ah. na leer képp ku mas a àndal daanu na depuis socialiste ak léegi di man duma mari mari marioñott lan koy waxe duma mari marioñott personne man dama am gëm-gëm ak i kuma andal and ma ak yow kuma bayyi bayyi na ak yow président Macky Sall la andal ci guddi yi ñu toll waye nak damay wax ni ceci paré pour être mille tracement parce que parti bu man di doon buma ma ci gisu sama bop lu ma fay defati suma ma ba sama dëgg mënu ma wax lu ma fay defati gëm mom kenn la ko def muy Serigne Touba kon li la ne won naa ko leeral pour ñun Sénégalais yëpp ñu xam ne fii la nekk lii mooy li ñuy jariñ ci relation diplomate entre Gambie ak Sénégal ni mu rafetee gëj na ko rafete kon loolu lépp ñu koy ndokkeel président Macky Sall di ko wax ne ko lii ñu jëm lii ñu jëm laa la wax avec unité ànd nekk benn ca bàyyi pitaale yi parce que am na ñoo xam ne ci biir parti ñu ngi fi nekk di pitaale guddi ak bëccëg ma ne pitaale du dem jëmul kër nit bu dox day doxé ben tank, jëm fim jëm bañ ba amnam waye waaye yaa ngi suba lu ñew ngay tek fi tank di tek fang tank nañ ko arrêté ñi and ak Macky Sall nañ arrêté lolu ca xamné ñom ci seen dem bopam seen gëm-gëm lan amnam kun àndal mu né 1900 après 1960 neuf cent wara continuer di yor réew mi ci kaw ñu jappalé ko waaye ci dëgg nan bàyyi pitaal yi les responsables yi nga xam ne ñu ngi pitaale kon sëñ Modou Bara Dolly déclaration bi la waxoon ne day lay def di ñaanal mboolem Sénégal yi yàlla def fi jàmm ndax maam yi dañ ko fee liggéey ci Sénégal loolu bu ma ko waxee danaa dem ci mboolem tarixa yi comme que damaa am beneen rassemblement bu ma jiitu boo xam ne famille religieuse yëpp ngi ci Sénégal foo ci dem fekk ko fa nan gën a jokkule tarixa yi ànd nekk benn ni ko l'islam sante naa ne waxta si bi hamdillah jamian wala tafarqo loolu la kilifa yu bax yëpp digle loolu l'islam digle wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ben bi muy ragal gi nga wax ragal mom man ci sama bop la koy tambalé dama xamul fumi nek ci doomi adam bam bis ba démé ba xamuma fu mu nekk ci doomi adam bobu la ko noppé def ci àdduna kon fofu mom man ci sama bop jisuma ku taxaw ci sama kanam ku may ragal kon kenn laa ko def yàlla ca yàlla xëy na dama koo gisagul tout court kon jàpp naa ne jàpp naa ne jàkkaarloo googu avec euh, ak ci jàppale président de la république mi nga xam ne moo nekk jiitu coalition benn bokk yaakaar fii ci Touba suñu liggéey ak responsable yi fi nekk buñ jàkkaarloo ak moom yaakaar naa dana am ndam waaye nag du Idriss sekk tax ñuy wax ndax dañ fay nekk ak yeneen i parti ci dëkk bi moom dafa dugg ci dëkk bi am lu muy gëm gëmloo nit ñi di ko wane nit ñi ca fekk na bokkut ak la nekk ci moom loolu tax ñuy wax ci moom waaye du ragal du tamati nit la koo xam ne déranger nañu quelque part déedéet dafa am fu muy ay jaar-jaar ci dëkk bi góom yooyu wéragut mu ñëw ci dëkk bi jàpp ne nit ñi dañuy naaw ñu koy fàttali senegal yi di leen ko présenté encore kon benen bi ci dess it am question bu dess euh da nga wax euh, Moustapha Cissé Lo mais ba legui ci nit ñi dañu bayiwul xel ne Moustapha Cissé Lo na wax na fépp partout de minute wu Touba man kon pourquoi par mo dess fi rek nan Moustapha Moustapha Moustapha ah amna ay responsable yo xam ñi ngi fi diko ko ja di ko jàppale àndoon ñoo ñep nak ñun tàllal na leen loxo pour ñu ànd and liggey ay politique moo ñu boole woon pour man li fi dess Sénégal euh, day continuer politique gis nga politique na ngeen def nang politique dafa am lu muy lalu ci ay intérêt nii ki nga xam ne mën naa nekk sa noonu tey suba mën naa nekk sa soppe ki nga bañ a àndal suba mën ngaa ànd ak moom noo dama ne la man damay défendre samay intérêt politique défendre intérêt politique yi mooy su ma gisee nangam nangam joojee jaarut am naa droit donte sama parti la nekk ma ne lii d'accord ma ci waaye nag loolu teewut suba wala leneen ak leneen sëñ bi a politique fii la kii am na yeneen yu des yu waloon yu ëpp doole politique xam nga wax naa la léegi saako bu defu dara du mën a taxaw toujours damay wax ne li may wax muy dëgg gi donte ñu dañoo nekk suñu parti dama ne ak jàppale suñu secrétaire général tey jii bu ñu jàppale jàppale ga ci war bu subaa ñun ñëpp ñu ngi ci terrain bi di liggéey loolu nag toujours man dama koy wax nañu dooleel ñu wàcc ndax Touba depuis lii am am na élection yu ñu jàll bi ci sunu xarit euh, Cheikh du jiite ko am nañ 37 po 37 pour cent kon avancé nañ avancé nañ tuuti avancé googe nag suñ continué woon même liggéey boobu président dooleel ñu jox ñu ay nomination ci ay post su kale yoo xam ne nii danañ mën a suqali nit ñi jàppale leen kon jàpp naa ne jàpp naa ne war na noo mën a gagné élection yi ñu jëm man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy gëm ne waruñu koo mën a gagné man damaa gëm ne war nañ koo mën a gagné ndax dañ fee nekkoon ak PDS amuñu woon doole jàkkaarloog ay nit ñu nekk yor euh, euh, régime socialiste bi ci teewut danoo dem ba gagné ko kon gëm-gëm boobu ma amoon démb laa amaat tey ci biir APR euh, xam nga foofu ba tey damay leeral dara bokk na ci li nga xam ne dama koy dàq ba tey donte bëgg naa unité donte bëgg naa ñun ñëpp ñu ànd nekk benn li ma gëm mooy ñun ci suñ bop ñun responsable yi nek ci dëkk bi suñ capacité ak suñ expérience ak suñ xam-xam ak suñ engagement war naa mën tax ñu gagné élection yi kon soxlu ñu keneen ku jigeen ci àll bi ñu ci jappalé dama ne la déggol li ma la wax dafa leer man ba léegi si dama wax ne ñun responsable politique yi nek ci dëkk bi yii di Touba suñ doole ak suñ capacité ak suñu expérience ak suñ engagement soxlu ñu keneen ku ñu ci jappalé ñun nan ñu doole ñu wàcc ci terrain bi ah gañeel président Macky Sall élection yi loolu la gëm